salaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar ñu ngi leen nuyu ñu ngi fii seet si koo xamante ne kenn kenn dootu ko muy kan muy Djibril Diop Djibril lay la bàyyi la sa maa ngi lay fay. Mm-hmm. du nuyu waa Dakar People. Mm-hmm. di wax ni yal na leen yàlla yëkkati du nuyu mm-hmm. suma fans yi di wax sama yaay fi mu tëdd. yàlla na suuf ëf ci koom sam papa fi tëdd yàlla na suuf ëf ci koom. di nuyu suma famille di nuyu ñëpp ci barke yonent bi waaw. Djibril nag di naanaan bu mag a mag di yëngu ci wàllu musique Djibril ñu gëj laa gis trop trop ci la nga nekk. waaw ci li ma nekk mooy pare pour def album bu am qualité. Mhm. boo xamante ni bu ko ndaanaan yu mag yi déggee dinañ validé. Mhm. waaw xam nga jaan bu ndaw bu lolo bu lañ koy wax. Mhm. damaa lolu woon pour liggéey. dangaa mais bal ba tàkk na macha allah. dëgg waaw lolu rek pour jéem a génne loo xamante ni du ma ni kenn du ko fi def. mais dinañ bokk ci morso yi naan. Mhm. ak kii kat macha allah. depuis bi ñu la gëjee gis ci musique boobu son boobu noonu ci Limamou Laye booba tey gisaatuñu mhm. la man booba tey man déggaatuma la boobu. Mhm. non pourtant génne na fi nag. Demaraay Saliou Ndion. mais bee gën a mais bee gën a waaw bee boobu parce que boobu. parce que boobu dafa amul gunge. dafa amul te bii amul gunge man maa def sama moyen bopp. mais dafa am dafa am nekkoon ci ginnaaw. Ah, xam nga mm-hmm. xam nga booy jaar boo jaaree foofu booy dem ci yoon mu lëndëm nga ragal mm-hmm. boo amee ñu lu gunge mm-hmm. day fit waaw mais bii nag maa def suma moynu bopp fekk ma am ci yu ma jóge woon defal ko suma bopp topp ma promotion bi topp ma ko woon ba yàlla ñëw ki mbiram yónniwul kenn mu ñëwal boppam teg ma ci kot teg ma ci yoon bi ma ciy sant sunu borom bu baax ak sama liggéeyu ndey ak sama barke baay ak ñaanu mag yu baax yi. ñaanu mag yu baax yi. Ah. Euh, bëggoo sa ñu wax ci ci ci wàllum waa presse A ci Bouba Ndour mais foofu tamit ñu waxtaan si tuuti. Hmm. lu tax nga génn fa nga faa génn wala lan la. non génn ma fa génn ma fa loolu bëgguma sax di génn ma fa Bouba mooy li may wax rek. dëgg la su ma nit la suma ma grand frère la su ma la. Hmm. lu nit di def ci trois mois ci quatre quatre de temps laa ko def. Hmm. artiste li muy def ci trois mois wala ndaanaan li muy def ci trois mois. man Djibril Diop ci quatre heures de temps laa ko def. Mm-hmm. ci ay morceaux yu am qualité. dëgg léegi léegi moom. lu xew du dara xam nga def am nga tamit découragé ci la bokkoon man def suma album ñu war ko génn génne wuñ ko. Mm. ma toog sama ruxu. dëkk après bi ma toogee nag laa xam yëf yi bu dee ay saam la am naa ci bu ci nit amee benn man war naa ci jël ñett. Mm-hmm. mu ngi fi sunu borom jox na ma ko waaw ci laa tooge nag yàlla boole mag ay nit ñu baax nag ay nit yu baax ma dem congaan ak monsieur congaan ak sama copine yi nekk Allemagne ñoom ñëpp ñu ciy dugal seen loxo barke Seydina Mohamed bu nit di ut alal utal nit ñi maa ngi gërëm jaami yàlla yooyu waruma wax erreur waruma sàkkal sama bopp noonu waruma def dara lu may xeebe waaw li ma fi def am na ñoo xam man defuma fi lu fi kenn deful mm-hmm. mais yàlla xor-xolu jaam yi dugal ma ci mm-hmm. kon waruma sàkkal sama bopp noonu képp ku taxaw pour jàpp sama carrière rek maa ngi lay ñaanal ci barke yonent bi mm-hmm. yàlla na la yàlla suturaal ubbil ñëpp nag samay porte waaw ubbil ñëpp samay porte te xam ni sama carrière mi ngi soog a commencé daal. Ah, waaw maa ngi soog a commencé mais dama nuyoo woon rek. waaw <laughs> ah, dama amoon carte d'identité léegi li ma joxoon jeex na carte d'identité bi jeex na dama koy renouveler waat. waaw yaa ngi déggante Bouba Ndour ak Youssou Ndour ñëpp. non su ma amee ci moom soxla damay dem ci moom. Mhm. su ma Bouba su ma grand frère la su ma lépp la. parce que Seydouna Mohamed Bouba fii la ma teg man ma bëgg ko mu bëgg ma waaw. anyway yàlla dogal. mais da nga ne ci lan dama ne jamono yooyu jamono yooyu. instant baay bi découragé ci la woon quoi. la la tax nga découragé. parce que mooy lan. mooy lan ci. moment yooyu. moom sax nee na kii ku mu génneel album ku dul Youssou Ndour dina la dina la fete. ñëpp di ma laaj affaire yi. ñëpp di ma laaj affaire yi. barke Seydou Naama soo doxee woon ba xiif ñu tegal la sa plat préféré nga raxasu ba set. bay waaj a dank di sex ñu rocc bool bi nooy def looloo ma dal nit ku baax sequñu leen bëgguma sax di wax ci lii parce que su ma gaañ la maag moom une heure vingt la ak une heure ma dama nuyoo woon rek dama nuyoo woon di wan ni am na ay ndaanaan yu nekk ci banc de bi te su ma ko defoon ñu jépp ma ci damay bàyyi dem jàngi tool yi wala ma dem géej di nappi mais nit ñi ñoo ni dama ci am cër sentir li may def nee naa la am na ñoo xamante ni Youssou Ndour da leen di déranger Yande Codou seen moo leen di daaneel. ñii Aline Mbaye Nder da leen di déranger Djibril Diop leen di daaneel. ñii Djibril Diop da di déranger Ndiogu intéressé moo leen moom la ñuy déglu. mais man ñi ma bëgg ñoo ma ci ne ma mi ngi fi demal. te xaw nga koo mën. <laughs> dëgg la mais Djibril Diop fan la jàngee way non way jànguma ko fenn man dama doon teg toog ñuy déglu ay fii sama mag bii laaj koo tey jëkkëram dafa jógee Liban indi benn chaîne en musique su ma tegee ay morceaux coono yu njëkkee di ci topp. Hmm. ba ni coon di génne numéro 10 boobu nguur gi Abdou Diouf moo ci nekkoon te san sama jëkkëru mag bi yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ma kan moo woy li Abdou Diouf ma ne ko Abdou Diouf a génne kaset bu bees ko Abdou la ma ne ko ñu toog di ci waxtaan foofu nekk ci sëmb yi mm-hmm. soo demee nga am vingt mille tey nga am trente mille ñoo jàppale sa yaay mm-hmm. ma ci dem di ci dem ba benn jour ma ànd ak suma waa ñu dem géej ñu dem Gambie mm-hmm. ñu ngi seer bakaw may way wayu coon sek benn waay jóge ci touche bi ne et mbokaa bu ma la yóbbu Angleterre di ma woyal man ki yii man su ma su suñu waa kër dañ may dóor mu deme noonu may nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba ma dem ba xam ne lii war naa ci mën am cër rappeurs yi di ma contacter may def ak ñoom featuring ay ay ay ay MC ay Mandeo Clan bu ma defee ak ñoom featuring affaire bi affaire bi cartonné mm-hmm. ah bu ma nekkee ci programme yi simb tànn biir ñëpp ne ma. yow lii macha allah jàpp ko. Hmm. ma toog ba un ma dégg ñu ne ñoom bu wëndul dañoo concours xeex si biiru. Hmm. ñu ne ko ko gagné dañ lay defal album dañ la yóbbu tournée internationale. Hmm. muy mille artistes. ma ko déggee mu ma fekk ci ki ma lay wax Demba Sebor man de yow Kelen Kelen rappeur la woon. mi ma fekk muy ngénte benn doomam moom la tuddee Gaston. bi ma ñëwee mu ñoom ñu toog ñu waxtaan ma am ma ñaan paas ñu may ma cinq cent mhm. ma jël cinq cent bi paas si dem bi ma dem RFM bi ma ñëwee ma fekk ñu ne ma yow mii da ngay way man leen damay jé maa mujjee déposé ndeke teyoo suñu borom dani ma mille personnes yooyu yaa koy gagné yaay def album yaay dem tournée internationale yaay def ak Youssou Ndour ci kattan suñu borom foofu nag après ci laa kiiwee commencé dem ñu ne ma kaay enregistré sa album. Mhm. si laa commencé woon am fit bi nii nag ma xam ni yëf yi la du lu ñuy foyee. ma gën ko bëgg nag. lépp lu ma jaraloon guddi yi la ma gën a jar. takk dàll yi di entraîné. Mhm. musique mhm. su ma xam nga musique daf ma tere lu bari. ma bàyyi ko kon musique dafa am bor bu ma ameel man. mu ko war a fay. bu baax sax. léegi damaa bëgg mu fay. mu war la ko daal. waaw ah, moo bi di liggéey. <laughs> lan moo tax album bi li tax génnul nag kooku nag Siré Ndour moom nga koy laaj. kan <laughs> booba Ndour. <laughs> mais foog li tax génnul. nag wax dëgg fa yàlla def naa album bu garaaw bu am qualité. macha allah depuis dix ans. non album bu li mu sax la ca biir dàq. la ca génne la ca biir dàq. te la ca biir génne la biir génnagul. ba tey teg nañ ci bàkk yonent bi la bàkk sama yaay ju baax ja. Mm-hmm, bàkk ci maam li maamu mi nga xamante ni way wi moo ma moo ma may lu ne. moo ma boole ku ne ubbil ma ay bunt yu ne. mat na dix ans barki si deux mille léegi am na ñoo xamante ni tey bu lu doon def tey bu ma tee quatre ans cinq ans sax. day fay. mais man heure bu ñu tegee sama clip. Mm-hmm. heure boobu laay gën a mën a jóg. Mm-hmm. pour defi technique de voix. man damaa bëgg di woy ba bu ma amee téeméeri at boo ma woy looyee ma ni der ca kaw waaw yaa sherifa Useynu Laay leeral nga sa wotin maam ba nasaraan baa ngiw yoo lay mataar laay mamadu mataar laay diinay ma laay ma jàpp diinay ma laay bu doon nit ku weex dina jàpp di nay malaay jibril jomba taas la xariju ngone ma yaaye jaal mama taari bay jaañ mais dum joobe kura jaañ kura jaañ mu dee mu tendo ye jur le mu mu jur ko ña pay njëmi ay sooy nasaram baa ngi yo lay ma taar lay mamam mamadou ma taar lay macha allah macha allah baat na. daa dee dama sonn. moo gis nga musique du lu ñuy fowee. Mm-hmm, dëgg war nga mën a toog sans instrument. Mm-hmm, bu baax tànk wayoo nit ba muy am chair de poule la ngay def li ngay def yow yaa ko war a njëkk sentir. Mm-hmm. Sénégal nag ñëpp mën a way. dama ne la man bëgg naa su ma defee. ñi jiitu ci musique bi oo ma ne ma validé nañ. bëgg naa man Djibril Diop su defee. dëgg ñi téye musique Sénégal. oo mu ne ma validé na musique nag dafa am ñu koy téye bési àjjumaay seen njiit weer weeru kooree seen njiit yonent yi Seydunaa Muhammad ay seen njiit sëriñ si sax am na njiit kon ñun dafa am ñu jiitu am ñu ciy topp mais bëgg naa buñ limee ci dix premières yi ma bokk ca que am ngeen ñoo xamante ñu lay jàppale pour produire la non man dama soxla ñaar mm-hmm. soxla ma producteur kese mm-hmm. dama soxla promoteur ak producteur mm-hmm. bu la produire ba pare mhm. promoteur bi lay yóbbu ngay def tournée nationale mhm. ngay tëgg mhm. ba public bi xam la nga def terrain boobu ba pare loolu sax laa gën a bëgg ko instant su ma paree du soog a def dugg studio def sama album mais maa ngi tàllal képp kuy producteur wala ngay promoteur pare naa pare nga daal pare naa liggéey rek ama ñor pare nga mais kenn jàppaleegu la ma kenn gisagoo kenn waaw mais am na ñu may contact non asafurla am na ñu ma gis damaa def émission am na ñu nekk ba États-Unis di ma am na maa ngi leen di déglu ñu ñëw am na ñoo koo xamante ni mu ngi jële fii gars yi oo na ma këram di leen yóbbu tournée international oo na ma ba këram ñu waxtaan nii laa bëgg ñu liggéey man ko acca yaa ko teree neex ki bëgg ki ko wéttali ki ragal ci néeg bi ak ki bëgg ki ko wéttali te jël buntub du leen boole man lii dama ko bëgg man ba à cent soixante laa doon liggéey armée française bi ma fay liggéey bi ma njëkkee fay damaa tëju ci toilette di fecc di compter bi ma dagg liggéey ba ndax secteur ngay xëy bala ngay agsi si jot simb day tas programme yi day tas ma bàyyi métier boobu topp way du succès du ay gale ma ci dugal di leen musique dama cee bëgg lu ci sama moroom teg ma teg ko ci li ci faj ay buum gàcce ci kàttanu yàlla yàlla jurul kenn te kenn juru ko mooy borom mbaar mi kon yàlla na nu sëqal sëqal Dakar people sëqal ñépp ci barke yonent bi waaw. bu la Waly woowoon nag ah, ma uti Waly ñu job parce que Waly bokk na ci ñi tee musique gu Sénégal mm-hmm. Waly waykat la mm-hmm. Waly mu ngi dimbali jaam yi mm-hmm. Waly xol ba rafet na. barke Seydina Mohamed. dañoo gis ne dañ koo sonal trop ci lu bëri itam ñu koy wax lu nekk. ku sañoon doon doon ku sañoon doon waale. Thione <laughs> Seck waxuma la waali dina juri dina ami Michael Jackson. Thione da ko fee liggéey. mais lan la. waali kilifa la. Mm-hmm. yàllaa ko takkal garaatu kilifa. ku mu oo nga daw uy ji. ni président bi oo ñu koy uji bu woote woon tey mu mu daw uji parce que alalam yëwén na ci tamit mu koy def barke Seydina Mohamed fii ba tabaski jot geste bi moom ci moom laa ko njëkk tabaski jot nga oo ñi nga ñi nga bokkal jamono yëpp ku ne nga jox leen xaru tabaski te am na ñoo xamante seen xaru tabaski daaw ñu ko génn di yow mais moom ku mu jox xaru tabaski nga génne yow te naan sang leen xar mi. bi tamit di am seen diggante Wally Seck Sidi Diop voilà doo comprendre itam su ma sañoon nag concurrence boobu. du du du am quoi. Mm-hmm. man li may def dama ko bëgg. Mm-hmm. mais am na ñoom li ñu def mën nañ ko. Mm-hmm. même su leen ci jiitoo. wërsëg ak bakken yàlla moo ko yoral boppam. waaye li mu ngi ci xoolu jaam sii Sidi mu ci xoolu jaam yi. n'est-ce pas demoon na soirée waali waali jox ko mu yegg. nañ moytu gaa yi ñoom ay ndaanaan lañ. Mhm. Sidi moo taxaw ni Waly magam la. Mhm. Waly reconnaître xam ni Sidi rakam la. bu leen kenn boole. Sidi booy bu yaru la Waly nit ku baax la. te yàllaa ko teral te mi ngi dimbali ko yàlla teral mi ngi ciy dimbali jaam. Mhm. waaw musique du course. mais Thione Seck dafa def ak Baaba Maal featuring Mapenda. Youssou Ndour def ak Omar Pène ëllëg si biir. Youssou Ndour Yandé Codou mais tey génération bi ko ci oon fiturin danaan ak concurrence la koy def du bañ sax concurrence la koy def naan dama koy bàyyi gis nga bi mu yuuxoo bi ma ko defee nii ku ne xam nga ku la mën kaas yee wuute mi ku xëy da guux des fois nga def café meew man ma def café Touba kese mais am na ñoom ñoom ñooy labar yor xaj nañ ci poos hmm. waaye cey ndaje buñ génn ndaje buñ génn ndaje ma tas dafa am ñoom ñii ay star la ñii ay artiste la dafa am ay ndaanaan ci biir ndaanaan mais ñëpp bëgg a kaw mais suuf du ñàkk gaay waa ji wax na ko su suuf neexoon golo du yee ñii dañuy féete suuf ñi féete kaw xam ne loolu boo koy def sax mooy fekk yàlla mu taxaw nga ne ko yàlla dëkk naa ñu bëri li may wax waxuma ko ngir man yàlla laa yaakaar zil arsil majid yàlla rek laa yaakaar yaakaaruma keneen mm-hmm. mais yàllaa ko def li nañ ko bàyyi xool ko ni ko yàlla def te ñaanal ko sa diggante Aïda Samb yi dañuy déggante. su ma dëgg fa que benn jour bi may contacter oo ko ay nasaraan. contacter ma bitim réew. Mm. ñu ma ko doon laajaale man ma ko contacter ku baax la moom tamit. ku baax su ma ñëw man ndaanaan su may xarit lañ. ndaanaan yëpp samay xarit lañ barki Seydou Daaw Mohamed ñii damay def ak ñoom émission dem seen kër ñu doom xaalis bari na ma defal essence. ay Fallou Dieng. ak Seydouna Mohamed ay Assane Ndiaye ci bi Dramé ay joli kër lañ parce que ñoom dañoo xam musique ñoom musique def ñu ko concurrence. waaw mais euh, Sidy Diop man li ma jaaxal pourquoi lan moo tax géwél la man géwél bi man moo ma jaaxal man. waaw mais wax ni dama la. <laughs> non du ngéwéle xam nga ngéwéle maanaam du as question ngéwéle maanaam nit booy li nekk sa xol. Mhm. man xam nga coon dani xam nga ni man du ma wayantu man xamuma defantu. Mhm. li may wax ci man bu ma man lu ma sant rek laay wax gis nga comme ni ngeen ànd nii ëllëg bu ma koy wax day doon dramatique ci man ku koy déglu day am ndeysaan mooy nga woy ba pare te amul ndeysaan baaxul mm-hmm. xam nga ni ngeen ànd ni yombul parce mm-hmm. que Seydou Amar kon na leen yàlla suturaal ñaanal leen mais seen ànd bii tey am na ñoo xam ñi ngi naan fu dem filmer yàlla na fulu Sénégal yi dafa bëri ñu soxor mm, dañu woon Sénégal yi dëkk teraanga la woon mais Sénégal léegi fi nga toog am na ñuy toog naan bu mu wax bu mu def émission dañu tee baat bi sa waaye li muy cadré heure bu cadré na na fulu mm-hmm. loolu tax yàlla yebal benn feebar bu ndaw ñu naan ko covid yónniwul mu indil ko boppam parce mm-hmm. que Seydou Naam nañ bàyyi iñaanante bi mm-hmm. ku jiitu ka ca tes topp ka ci topp mais des fois yaa ngi diir nit mbagg te ka ngay diir mbagg moo lay dimbali ëllëg des fois nit a lay jox teraanga ngay lekk teraanga bi tooke lay doon ci ci ci yow ëllëg. man dama gis ci senegal loo xam dafa ma bett léegi quoi. Mm. da nga daan gis ku daan toog xas nit ba mu ba mu ba mu ba mu lu ne. Mm. tey kooku jël la teg la ci watam di la fay nga koy lekk poson la. nga dem jox ko ca sa njaboot. moo tax des fois nga gis ku jur ku incliné nga naan lii ko daal dafa lekk lu lewul. Mm. wala toogoon di la xarab yow. ba yàlla dimbali la ci sa doole nga ko ciy dimbali. yàlla na ko yaa ngi koy lekk de waaye lu ñaaw la ko doon wax yépp lii te yaa ngi koy lekk muy neex ci man muy muy neex ci yow waaye dina am ay conséquences yu lu muy jural nañ yéenante jàmm mm-hmm. man ci sama àdduna gisuma lu may déranger ci àdduna gisuma ndaanaan bu may déranger ci kaw suuf te ndaanaan du ma mës a déranger ci kaw suuf barki Seyduna Muhammad barki Seyduna Muhammad am na ñoom ñu ngi fi ñoo dàq way soow te ndamoo woon ko mais jël musique bi di ko def arme amoo talent ngay def kalan talent dafa gënoor kalan talent fi lay bàyyi kalan kalan day dem tey boo jëndoon kaasu café Touba naan ko boo paree kaas bi doo ko boxam sànni ko fi bës bee na rek mais am na soom seeni son comme kaasu assisté da ngay naan ba pare boxam sànni ne trois mois mu jeex man damay sant yàlla bu baax heure bu appel jotee nit daf may oo ne ma yaa tax may dem yoof bu ñaan naa lu ma woy buñ ko tegee tey mu mel ni tey laa ko woy ma koy ñaan suñu borom mais musique léegi arma lañ ko def suñ demee ba musique léegi bala ñu lay teg da ngay fay hein animateur bi nga jëndal ko dàll wala jesner ah waaw loolu doo découragé ci musique kon daa baa ñu laa teg da ngay fay de am na ñu koy def bokk ci staffu artiste bi. Uh-huh. dinu propos dinu imposer artiste bi. musique dafa dem ba nga xam ni valeur bi ci nekkoon ak barke bi ci demoon nekkoon mi ngi mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wàcc ku amul fit nag doo ci bokk. Uh-huh. ku amul fit doo ko ko def. man uh-huh. man day bu may fay studio laay fay. Ah, fi ma koy teg nag mooy ku ma tegul ren déwén di ma teg. dañuy gis ak seen bopp noonu yenn animateurs yi yenn animatrices yi. Hmm. nañ yemale. xam ni daan na kii koo gis tolloon ni ci ay guddeem nga koy pare ko. des fekk booy bu ndaw carrière am nga koy jàppale. Hmm. ba mu ba ba bokk ci jiitee musique sax nga leen di oo ñuy bañ. des fois animateur ñu fay ko xolam mu toog naan booy bi ni ma def ndekete xolam lañ ko fay. Hmm. am na ñoom Jibril Jóob lañ bëgg. waaw mais dama gis télé bi tamit ñuy teg ñuy teg ñuy jóg parfois laa waaw mooy li ma la wax rek ah. man way laa xam enregistré joxe aw ma télé bu ma moom aw ma bu may kii aw ma ñuy dem ci télé naan kii ak nii. musique moo toll foofu kumba am ndey ak kumba amul. mystique mystique. bi sax mystique da koo jàpp yonent bi sax mystique koo jàpp. Hmm. <laughs> man mystique man bu ma diggee tur boobu sax damay tiit mystique. mystique hmm. laa liggéey. non xaw ma liggéey bi mystique man fii képp am na yow laa liggéey mais am na ñoom kenn du leen la. am na du damaa dañ ma yëpp dañ ma conseillé. Hmm. waaye mystique buñ koy wax am na ñu bëri dañoo kenn mësu leen a mystique leen sax mais ku du dëgg après bu deñee da ngay am defar ko suñu dara dootul fees sa bët da xam fi ngay teg sa tànk xam fi ngay lekk fukk du la yóbbu xanaa xamu tolof tolof day defar nit man tolof tolof moo defar tolof tolof moo ne tolof tolof ma may jaami yàlla yu baax yi ñu nga xamante ni barki Seyduna Muhammad ay yàlla yi kese lañ mm-hmm. tolof tolof moo ma may loolu mm-hmm. Sénégal dafa am ñu am yërmande am ñu baax mais senegal am na ay jinaxu bajut ñuy matt ba mu tàng ëfaat ba mu seet mais man gaa yu baax laay war te ñoom la ma la boole maa ngi wàcc sax bind benn morceau boo xamante ni gaa yu baax yi laa ko tuddee gaa yu baax yi parce que yonent bi non fii da ngay way léegi ñu taxaw léegi jël dem dugal est kii nan maa ko moom nan ba ma koy fent fii <laughs> gi xamatul lu ñuy wax ak Seydina dama ne la ku ci bëgg ñu dégg ci musique bii lu ci yàlla defal nit di nga ko yéene ko barke Seydina Muhammad yàlla moo bind lii la Djibril am ci groupe du na at moo xamante ni buñ fa tolloo day day ko dégg yàlla wax loolu ba bind ko ah tëj ko yow nga ni naan ko noonu loolu bu mu fi amee loolu mooy dëkk yàlla kaa ñu bëri mhm. ku bëri yàlla nag am ci ku am am ci kaawu dëbu am dootoo jóg mukk nañ raxas xol yi adduna bi dafa jeex ba pare ana ndongoloo ana consek ñu mhm. dàqawee ci àdduna la yàlla di rob la la yàlla yóbbu mhm. ana njaga bay ñëw ñuñ leen def yow kaar ba defoo te am na ñoo xamante ni sax si wayu coon lañ la ñuy way ñii ci wayu ndongoloo ñii ñooñu nga dégg ñëpp kenn du fi waytal te laaloo seen way ah anañu nga gis ko jël benn way dëpp ko naan maa ko fent hmm. te ndongolooy kese la coon sekk kese la te ñooñu bin gaañoo da nga gis conteneeru ndongoloo te génnoo ci benn ndongoloo coon nekk fi gis conteneeru coon sekk te génnoo fi benn coon nañ bàyyi kii bi waaye nañ bàyyi soxorante. soxorante beeg ñaar te yéenante jàmm. dëgg la waaw nañ yéenante jàmm. yaa seen projet yaa ngi ci yéen. projet album man maa ngi ci sama projet album. Mm-hmm. di gërëm ñépp di nuyu suma. Mm-hmm. jarbaat yi nga xamante ni ñoom ña ngi États-Unis mm-hmm. waaw parce que moo tax liggéey rek ko maa ngi ci daal te kenn du dem guerre di wane say bomb. di nga ñëw. bu ma. bu mu dul woowaatee. non bu ma bëgguma sax di wax ci moom. di nga ñëw laa bu la woowaatee di nga ñëw. wala ci boppam bi woo la téléphone ne la ayca ñëwaat. liggéey laat xam ku ma ci man ku ma ci woo ne ma ñëw. liggéey ñëwaat parce que Seydina Mohamed su ma loolu. kilo loolu rek. non bu la woowaatee laa wax nga ñëw di nga ñëw. xam nga sama léegi ma may la sama diggante ma ne Bouba Ndour xam nga lan laa ko jàppe woon. benn affaire am na fa laa waroon génn nit ñi. xam waaw waaw. Mm. te li dese ëpp man wayaguma man damaa nuyoo man wayaguma de wayaguma barke Seydina Mohamed wayaguma damaa nuyoo rek mais wayaguma. nga nuyoo rek. te la ma bind denc ko. Mm-hmm. bis bu liggéey jotee ñoo xam ne liggéey jot mm-hmm. mais da nga xool musique gu Sénégal des fois ñi génn yëpp couleur musique bi c'est la même chose. Youssou Ndour gis loolu defaraat musique bi waaye li ñëw defaraat ko da nga ciy sentir guinéen lépp ci biir musique bi kon am ñu ngi am lu ñuy jéem a créé keneen ak keneen hmm. Tarba Mbaye ñoom El Kayta hmm. ak a mën a way nag El Hadj Kayta kooku dafa mën a way man hmm. booy dafa am ñu mu ci bëgg ay Tarba Mbaye ay Sidi ay El Hadj dama leen bëgg dañoo mën a way yaa man du man parce que man lu may wut du ma ca dafa am woykat yoo xamante ni dañ lay gis naan la ñëwal sama soirée soo nee tël seen kanam lañ koy teg bàyyi ba bi géex naan la gisuma la woon man ma invité nag ne ma damaa bëgg nga ñëw sama bés su ma ñëwee nga jox ma ma damay ñëw ma pour seetaan way laay def su ma ñëwoon pour seetaan damay toog seetaan wala ma ñëw pour câble damay jël fil lem boo paree jox ma lem mais damay ñëw pour way su ma ñëwee jox ma ma way ñu sot way waaye bala moo neex da koy sot kii xaacu fii kii ñuy xëccoo way wa mais léegi ñu ngi yàq way di tontonte ci way di ci way way dafa war a gis nga tey sant yàlla rek ustaas bi toog di waaraate am na ñoom amuñu jotu toog di déglu ustaas bi musique dafa war a doon waaraate am na ñoom waaraate ci musique lañ koy déggee da ngay dégg waykat yu bari naan ay waay coono tax ma bàyyi sonal sama sama doomu jiw ndax lan coono ni man jirim laa ci sama kër baay sama seetu baay bi des ak ñun ci kër gi nu mu bonee ni xol bi ñuulee am na ñu mu defar am ñu daan def noonu seen doomu wujju tey buñ dégloo way boobu lañ bàyyi loolu mais léegi ban way moom moo fi mën a yéene lan la ñuy way léegi ak lan <laughs> <laughs> ak lan ah <laughs> ay wéyaay mais loolu nañ defaraat musique bi waxew ma ko pour pour dara puso bu warul réer suñu loxo quoi parce que Seydina Mohamed dafa am trois trois catégories mhm. ñoom yu suñu mhm. beneen bi ñoom Aline Bay ñoom Assane bu mhm. ak ñoom ah. Manel bii mu am ay ñoom Jibril Diop ñeneen mais bii bu mu fii waaw non du mën a way man fayo man musique man dëggawlu ma fayo ma sama bopp hmm. ba yu bëri ci musique maa leen mag tey boo ma gisee rek buñ taxawee da ñoom ñoo ma mag musique dama ko bëgg daf ma jaral ay ma ciy def ay technique hmm, dama doon topp maxul lébu gi maxu lébu gi sama papa moo ko doon bindal ay way hmm. wala ku sa papa doon jàppale ci ay maxu ay way yow mi mu doon sa papa kon nooy def may fréquenté maxu li bukki mu am ay technique yu may jox hmm. te technique yooyu boo ko xasee bay def du mës denc ci yow hmm. amoon na benn footballeur bu fi nekkoon ñu ne du entraîné te foo ko ooyee ci football mu ñëw football romaar yoo xaw ma daawul entraîné mais fu ñu ko convoqué mu ñëw football pour prouvé na nit di way chaque jour am na ñoo xamante ni duñ way duñ dem fenn buñ toogee seen biir kër def ay technique de voix te yow muy compétir chaque jour boo leen yuuxoo ndooy mu bàyyi la fa affaire yi bëgg-bëgg la ak gëm-gëm mm-hmm. waaw bëgg-bëgg la ak gëm mm-hmm. ci bokkul safin am na ñu mën a way man dafa am ñu may déglu man dafa am ci ñu may jànge de man dafa am ñoo artiste man dama am ku si ne am naa sa cassette mm-hmm. di ko déglu ku su ne soson mi ngi sama portable may takk sama casque des fois di leen mm-hmm. te su ma ci nekkee bu ma kenn nañ ma bàyyi rek ma déglu mm-hmm. am na am na ay techniciens yu mën a way barki seegu naa ma am ñun suñu yéenantee jàmm am na ay ndaanaan yu fi ne way benn way ci seen biir way mën nga fee créer quatre morceaux loolu nag da ngay téye façon yàgg tukki moo la gën a xam dëkk bu bari ngoon mm-hmm. soo muusee toppal ci ginnaawam bu ngooñ manqué mu ne la nañ dem bërëb sàngam ngooñ maa nga fa nga lekk ba mu lekk ba suur nga di galgalante di xiiroo ko ñaay ah dëgg la looloo fi xew maa fi dàq waaye de man nag nit mën na maa dàq sañse nit mën na maa ëpp moyen ah mais waaye moom ma nangu nit dominé mu ko de. na waaw ah, bu ma ko nangu man. di bëgg na nga may nga may at yu bari nag. waa di di nuyu àdduna bi di leen féliciter di leen remercier. Mm. ndax lii ngeen def. Mm. parce que tey bégloo ngeen ñu bari. Mm. parce que Djibril Diop am na ñu ko bëgg. am na ñu ko gëjoon dégg. tey ba émission yi may def tey ubbil na ma lu bari juróol na ma lu bari. kon di leen ñaan yàlla bés bi ngeen fi ñëwee nii balaa déwén ngeen am seen télé bopp. waaw mu tudd Ndiobène TV. <laughs> yàlla am na ko mën na ko <laughs> bilaay waay nga la tànnal ki waay congaan man jibril jóob may waayo damay waayo ki waay xale baa ngi nii yaayam du muy def fi jantal min congaan jigéen du te day raaw baby maytul ma weetaay jëlal <laughs> macha allah